ku tuddee sax final sax gis nga nee naa Sonko namm naa la Sonko namm naa la c'est l'expression sonore de la résistance constitutionnelle à l'oppression nit ñi xamuñu ni ce pays là sooy jàng ses ressorts di liir dem ba ci ñoom ay Thierno Souleymane Baal pour xam li ñu namoon dañu montrer démontrer que fii dëkku liberté la sénégalais yi dafa am loo xam ne ñoom dañ koy indexer ci seen bonheur ak ci seen dundin mooy maanaam seen nekkin maanaam ku leen may jàmm ku leen may aafiya soo xoolee ni ñuy réagir tey lu mel ni équipe nationale da ngay gis ni suñu joueurs yi ay vedette lañ mais kan moo leen ravir la vedette soo ñëwee da ngay gis ne nit ñi ñu supporté mais leneen la ñuy wax. di wax Ousmane Sonko non non ce que amul ràññee bu ñu war a ràññee. non parce que on passe l'hymne national le devoir de tout Sénégalais c'est de respecter et d'honorer cet hymne est ce que yow en tant que intellectuel est-ce que da ngay cautionner que l'hymne national soit interrompu par des messages politiques alors que dans ce stade-là ce jour-là c'était 17 millions de Sénégalais qui étaient en communion et le football n'a rien à voir avec les les, les activités politiques et politiciennes. ma jox la exemple dama mës a toog ci Pape Ngagne Ndiaye mu laaj ma invité ma. est que da koy cautionner. maa ngi ñëw rek. waaw ah. mu ne ma li xew. rafet na lool président ñu gis ko opposition bi dem ànd ak moom ñu gagné coupe d'Afrique ma ni ko dafa am ay bonheur yu fi am bonheur bu njëkk moo doon la bonheur de l'opposition parce que opposition booba fekkoon na mu def percée aux élections locales ak loolu dëgg gagné presque les grandes files mu amoon xawoon occoo lu ñu mënti wax même bu ñu nee defet politique victoire électorale xam nañ ni opposition def na percée muy le bonheur de l'opposition ñu ñëw ñu xool ni Sénégal da am problème stade et cetera ñu def un stade benn stade flambant neuf boo xamante ni àdduna bépp di ko coow ñuy defar stade bi avant loolu ñu jël coupe d'Afrique fii yow bokkoon nga télé ñi doon couvrir événement bi gëj nañoo gis loolu ci nit muy tudd le bonheur national le président Macky Sall defar un yu woo chef d'état yëpp nit ñi ñëw ak lu ñu mën di wax stade bi sag la n'est-ce pas muy le bonheur présidentiel léegi su ñu demee ba ci stade boobu noonu yow ngay laaj lan moo xew c'est très bien sénégalais yooyu noonu nga xam ni sa bonheur de l'opposition sa bonheur nationale ak sa bonheur présidentiel ñoom ñoo taxaw c'est parce que dañoo fippu mais pas durant non non non non non non non non non man dama ne la Sénégalais yi am seen message. à transmettre à la face du monde. bu leen neexee ñu transmettre ko. mais ñu respecter le passage de l'hymne national. xam nga Maïmouna c'est là où se situe le débat Maïmouna droit constitutionnel bi may jàngale. au-delà de son aspect normatif c'est un cours d'instruction civique. samay doom yi sax su ma leen di wax sax ci constitution bi su ma leen jëkk a wax drapeau bi fa mu nekk ci constitution bi dama leen koy rappeler ñu koy xam xam nga. am na loo xamante ni ñu ñun mënuñu ko nangu mais un peuple da ngay xam contexte lan moo tax nit ñi def loolu lu ko indi tey jii F24 bëggul woon marche gis nga bu ñu nax suñu bopp tant yaa ngi étouffer liberté yi nit ñi dinañ wut d'autres moyens te loolu nag maintenant les conséquences mooy doo ko mën a contrôler damay wax toujours ne la démocratie c'est le bruit et le débordement l'institution c'est l'ordre et le cadre moo tax sax alliance institution démocratique dañuy naan c'est une alliance contre nature mais dañuy juge dañuy war a am un équilibrisme ba nga xam ni combien de manifestations opposition bi sax yu ko waxee ñu ne ko doo ko def mais nit ñi dañuy am benn ressenti boo xamante ne dañuy bëgg a fippu su boobaa nag da leen di comprendre te foofu laa doon ñëwee li ma la doon wax sànq gis nga depuis mars 2021 y a eu un basculement dans ce pays am na un opposant boo xamante ne taxaw na ne moom nii la gisee soo ko ñu ne ko doo ko fi gisee ay partisans am taxaw ñu ni leen du ngeen ko fi gisee mais c'est une violence mais yow.